internet yi bàyyi xel Dakar live TV dal leen ak jàmm ci seen xabaaru bés bi dooreekoo nag ak Ngaaka Blindé gannaaw ba mu doon janoo ak Abano stress ab waxtaan bu nu sekkoon moom Ngaaka Blindé ak jaar ne fay jaaree tontu gannaaw aba ba ko laajee ni ko rek sa diggante ak Ara wax nañu ne rek jigéen a tax neexul moom Ngaaka Blindé nag mu daal di koy tontu ne ko rek dama dépassé rek fu ma jigéen di jotale ak ay nit ndax Ara amul sens interdit fii ci Ndakaaru foofee ca Mbour euh, saa su ma neexee dama fay dugg comme saa su ko neexee ni muy duggee fii ci Ndakaaru mu ne nag dafa dépassé di jote ak nit ndax jigéen mu ne nag musta euh, jote ak moom rek ngir jigéen waaye lépp rek lu ñu jotee euh, hip hop bi nga xam ne ñoo ko sekk moo ko daal di laal ak lépp lu mënti nekk ci ginnaaw rap bi ñu sekk la waaye nag musta jote ak ara ndax jigéen mu ne nag ñi nga xam ne dañoo am xel ñaar ci loolee nanu ko teggi teg ci suuf te xam ne Ngaaka Blindé dépassé na li ñu wax ci Birame Dieng Sall ak kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati mu di ay témoignages yi mu rek daal di def ci Ami Collé Dieng gannaaw bi sax gëj nañ ko gis loola ci seen yi wala sax lu ci benn plateau télévision yi mu mel ni rek moom Ami Collé Dieng jamono ji dafay dund jafe-jafe maanaam dafa daal di feebar ba yegg ci lool que indi boobule information sax mu di biram Dieng Sall ba tax na mu ne loolee rek bokk na ci li tax kenn gisatu ko ci rek ci kaw seen yeeg li ni mel moom nag. mu ne mi ngay tàllal loxo ñi nga xam ne rek yàlla suñu borom may na leen baatin ngir ñu gën a ñaanal rek kookee di Ami Collé Dieng ndax jamono ji soxla na ko lool ndax dafa euh, feebar ba jéggi dayo ñu wax ci sëriñ bu pàkkat yi nga xam ne jot na ko yëkkati ci émission boobee di faram fàcce gannaaw ba nu ko laajee nag tànneef ba nga xam ne Ousmane Sonko daal dina koy def ngir jiital rek kookee di Bassirou Diomaye Faye ngir mu nekk rek candidat bu Pastef moom ci addu ndax nag seen parti ñoom ñoo choisir kooku di Bassirou Diomaye Faye euh, yoonam nekku ca gannaaw bi sax moom mu daal di xam ne rek nga xamante ni moom moo di Bassirou Diomaye Faye candidat la rek comme moom am na jaax jaax ni moom moom nag mu daal di xam ne rek leneen la nga xam ne bëgg nañ rek mu daal di ci addu moo di wax ci parti boobee di Pastef ak ka nga xam ne daal di dañ koy tànn muy Bassirou Diomaye Faye mu ne nag loolee ma nekku ca Fabintu nekk ci série boobu di euh, Babel moom ngeen di euh, gis noonu rek gannaaw nag mu ci euh, joué role bu ama am solo di ko ci incarné askan yëpp di ko bàyyi xel mu mel ne rek moom Fabintu daal di nay rek ànd ak complicité ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñëw di ay collègue am mbégte boobee sax la daal di fësal ba tax na nag ñu ngi koy gis ci vidéo boobu muy fecc rek loolee di suus mu mel ne rek ñoom ñu ngi leen di tàccu mu mel ne rek complicité bu am solo la ñu euh, nekkee ci seen euh, série boobu. Viviane Chidid euh, la ñuy gis noonu rek gannaaw soirée bi nga xamante ni rek tëgg na ko bu yàggul dara mu def toile ci réseaux sociaux yi mu mel rek moom Viviane daal di nay indi nag beneen look bu bees tàq muy coupe carré nekk nag look boo xam ne jamono ji mi ngi koy proposé rek ay fansam la reine du Jolof jamono ji indiwaat na beneen boo xam ne moom rek lay. incarné euh, jamono jii ñu daal di euh, tàggatoowee ak oustaz Omar sàll gannaaw ba nu ko tegee loxo léegi boobu lay jàpp sax ma nga jóge kon ci communauté ya bi nga xam ne rek ñoo dugaloon ab plainte gannaaw nag ba mu daal di ŋàññee rek li nga xam ne moom moo di wasifa daal di wax ne rek ab rek biddaal ak yi ni mel mu mel ne rek plainte boobu nga xam ne dugaloon nañ ko sax waral ñu daal di koy teg loxo ka addu ca boobu le mbir mu di oustaz Alioune Sall moom nag mu ne ngir ñu daal di eh, teggi loxo seen eh, mbokk moomee ba na sax mu ne mi ngi def eh, kéem kattan ca suuf ngir ñu daal di koy rek bàyyi ba tax na nag mu daal di xam ne kon jamono ji am nañ si naqar lool kon nag ñu ngay jéem ngir rek ñu daal di teggi loxo kooki rek di oustaz Omar Sall mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen jaajëfal di leen wax rek lii moo nekkoon xibaar buñ leen doon jottali lu ko mooy di leen bàyyi ba ëllëg incha waaye rek ngeen vidéo du jour. yàlla rek

bagage yi ngi nii téere yi ma doon jàngee gis nga ko ne ca saag ba téere téere yaa nga ne lii ngay gis mu wéere fii yëpp samay bagage la aw ma fenn fu ma nekk tey maa ngi nii tey aw mu fenn maak sama soxna si amu amuñu fu muñu fanaan gis nga ko nii mu ngi sukkootu yet la yor di ko doxe man euh, góor la daanaka lu mu def maako ko koy maa ko lu muy def lu ne maako ko koy maa ci maa koy dimbale ci loolu. dama yaakaar ne ah yàlla du nu man nag benn doom bu góor laa am mu nga ne mooy genn wàllu nit la kon ku yëremaate waroon nga maa yërem ma nekk jigéen nekk ci société bi ñuy wax vivrière vivrière liggéey moo ma jàpp ba ma feebar feebar bi. maa ngi nuyoo di tànn man de genn wàllu nit yaa yaay doog Souleymane ay doomi aadama rek a may dimbali ku am doomi aadama mooy gis nga te mu tànka yi mënu ma dara mënu maa yëkkati sama bopp